jërëjëf welcome back euh, on Star TV euh, tey ñu war a am waxtaan bu nga xam ne rek ñu ko def ak Gambian player kii di Omar Diassi ñu gën ko xam ne di ama Wataman euh, Wataman nag tey dinañ xool ñëwam holiday fii si biir réewi Gambia ben tey dinañ waxtaan ak moom rek. Euh, jamono bu nga xam ne gis nañ ne jamono bi euh, dooraan active football la foofu si biir di Germany euh, dinañ waxtaan ak ñoom ak loolu ak tamit lu nga xam ne rek gis nañ tamit rek ne moom gis-gisam si Gambia seen rek national team bi si lu nga xam ne rek ñu koy am qualifié nañ for the first time ñu delluwaat na si qualification process bi loolu nekkaan nga xam ne dinañ ko waxtaan ak kii di Omar Diassi tey fii si biir lii di ama Baobab Euh, Omar ñu nuyu la bu baax a baax rek euh, fii si biir lii di Star TV MA Sport euh, Bantaba ñëw waxtaan ak yow ñu wër comme la back to the country jamono nga xam ne rek ñëw nga pour am fi short vacation balaa ngeen a delluwaat foofu si biir lii di Europe foofu si biir Germany pour delluwaat si picc bi. Um, man moom comme nu ma la ko waxee am always happy pour ñëwaat back home and you know knowledge. with the family with the friends especially when it come to football you know so amuloo dara lu dul sa dëkk tamit ak nu mu mun a so for us we are always happy to back and yeah. Euh, jërëjëf thank you Omar euh, ñu xool nag euh, gis ni nga nekkoon foofu si biir lii di Germany te nga nekk moon of the finest player fii si biir lii réewi Gambia waaye nag ñu gis club yu bëri boobu nag amoon nag club nga xam ne in England bëggoon nañ laa sign in Germany club tamit waaye wala fas yéene ñu gisoon loolu yëpp mu doon a dem waaye. still now yaa ngi gis na ni yaa ngi process di continuer ak sa lii di football euh, ñu gisoon na nga toogoon si benn jamono bu nga xam ne rek gisoon nañ nga stay away from def train di xaar ay euh, papers tamit you ak yeneen clubs yu xam ne waroon nañu mën a ñëw euh, ba balaa ñoo gis nga def gis big move foofu si biir lii di ama Germany naka nga nu mun a jàngalatee jaar-jaar boobu ak yow foofu si biir lii di Germany. waaw football moom dafa nekk loo xam tamit time la pare process la you know so um, xam naa ne Gambia comme noo ko waxee ñun ñu bëri dañu doon expect like to be in a bigger club ba pare yóbbu suñu dëkka si beneen façon level si tour bi quoi am na footballer yoo doon yoo dee nekk si àdduna bi comme compared to Sadio Mane and other players yow yaa dee jaay sa dëkka sa si boppam everybody know your country easy la but ñu yëpp loolu moo tax bëgguñ toon def dara loo xam ne àndut ak football mën nañoo toog foofu noonu def comme suñu yeneen morom def nañ ko bàyyi football wala bëgguñ ta ñib si waat toog utaal liggéey bi ko xam ne ne suñu ñëwaatee fi things dafa difficult ma because benn sax ni yàlla dee frustré soo fi nekkee nga yàgga fi rek ñu ne ah yow demoon nga Europe nii nii la you know so man bileewuma tamit ñooñu because of awareness bi la ak nit ñi seen understanding of nuñ ko gisee so moo tax ñu bëri tamit waaye ñun dañ gëmoon lu ñoo def because of dafa nekkoon si ñun so dañ dee ñëwaat you know ñëwaat ñëwaat ñëwaat ba yàlla def jaama so after ñu ngi woon jaama ni because England lañ jokkoon a nekk because loolu moo tax play wuñ England after three years you know nekk si Chelsea Crystal Palace Charlton then after three years noonu laa move dem America was okay amoon naa working permit ma nekk di play then but my dream to come back to Europe and to make it bigger so like my said man maa forcé move bi pour ma génn fa ma ñëw Germany Bremen 2013 in the Bundesliga you know everything was okay ba coach bu fa nekkoon nekkaatu fa Thomas Saaf so then ba pare man time boo nekk ma European citizen visa laa nekk di doxee visa tamit time la so noonu la visa bi jeexee noonu laa génnaatee Germany delluwaat America but all my dream is to come back to Europe de noonu laa ñëwaatee because bu doon life la kañ America la ñoo dëkka ko foofu moo sant yëpp so loolu yëpp ñun gisuñ ko woon time boobu football lañ gisoon dëkka nañ Canada gis nañ dëkka nañ lu nekk amoon nañ opportunity sax su football but comme ni ma la ko ta def lu dul xam ne loolu nekk man you know mooy football so moo tax ma ñëw Europe di dem ak ñëw dem ak ñëw ba yàlla def tey lu ma doon ut tamit nekkul di bees waaye tamit am naa ko feel naa comfortable little bit you know. naka la mel yow foofu si biir li di jàmmal ehm, doon xaar clubs eh, we also had information ne eh, amoon na yeneen clubs yu nga xam ne in Turquie bëggoon nañu eh, sign la pour génne la foofu si biir li yi waaye wa waral nga des foofu si biir li di jàmmal pour tuddee foofu. waaw so um, <clears throat> lu Hapura moo nekk ok bu ma play last season ak team bu ma nekkoon Hassel ma score like almost 17 goals and 10 assists so Europe la maybe fii duñ xam lu bëri waaye Europe is easier because foofu ñu ngi bind sa tour si newspaper yi so everybody will be want to interested to say ok dañ bëgg a gis kii ku nekk mu ngi affaire am so that time benn scout mu ngi jógewoon uh, Turkey daf dee liggéey German team su bëri mm-hmm. because Germany moom ñu fa nekk ñu ma xam ne nag day gis player bu jógee lower league sax dem sign tokki first division wala second division because of levels yi so agent boobu mu ñëwee first mu gisoon ma mu dellu ñëwaat waaw that time suma visa bi dafa jeexoon jos ma jeexale suma contrat ak team boobu maa ngi dugal new resident boo xam ne long resident la a daf day jël time a corona bi ak yooyu so ñooñu bu ñu ñëwee team bi tokki bi foofu la maam Birame Diouf nekk striker Manchester bi woon Sénégalais bi den maa ngi bëggoon a jël risque waaye ma bëgguma jël risque soo xam ne yàgg naa def ko suma life ma ne ah, xaar ma bàyyi fi kiit bi sax ma dem because first division team la waaye ma ne tamit nit ki tamit doo mën a defal sa bopp am na certain people foog nga confront leen nga wax ak gaañ jox seen idea so lot of people ñu ma idea ñu ne ma raka yow yaa ngi yàgg am problème ni kayit léegi trial nga des nga jës sa kayit yi because tooki nekk Europe mun ngaa dem tooki things doxut doo mun a ñëwaat Europe da ngaa delluwaat town pour utaat visa den ma call tamit maam Birame Diouf moom mooy capitaine bi foofu na foofu noonu Hayata Sport you know ma kool ko ma wax ak moom personnalité mu ne ma dégg naa sa affaire you know waaye man suma situation bu doon man maa yow nga taxaw nga xaar nga jot sa European papers ba pare soo ñëwee fii doxut mun ngaa delluwaay Europe easily mu ne waaye man play naa Manchester play naa Stoke I make my name already so man mun naa move waaye pour yow toogal so ma déglu waxam so beneen team yi jaamane bi tam mu doon toppa ñoom ñu Bundesliga team lañ woon ñoom ñoo nekk Papi Leroy Sané ku nekk Bayern papaam foofu la mu nekkoon bu nekkee Bundesliga moom la jaam Souleymane daf day ñëw suñu training ground bi dañ dee sa personnel ak yooyu noonu soo ma ah waaye ma sign fii nii ñoom ñu ngi si level bu baax man expecté woon sax comme suma carrière doon demee ak lu wees suma time sax naa doon nekk tamit si level boobu soo ma gisee offer boobu noonu ma ne ah baa ma jël ko ma xaarale suma kayit yi soo si diggante bi noonu laa signé gars yi te bu ma signé sax door ma soo demee sax si ligue bi gis naa ne pléwu ma force five game bi because of maa bi the last day transfer window 31st la resident bi génna then suma resident bi ma am long visa long visa so léegi maa ngi continuer di play gaay so I hope better offer tamit mu ñëwaat sax boo xam ne léegi dinaa mën a dem anytime ma ñëwee Europe bugg a ñëwee Europe naa ko ñëw comme du ma amaat woori ne damaa ñëw Gambia wala dem fële uti visa so alhamdulilah léegi so loolu moo tax ma desoon tamit pour xaar loolu noonu bar may dem turkaay ak yooyu noonu you know it was a very good league first division ak yooyu but tamit sometimes da ngaa xool tamit next three years two years luy happen sa mm-hmm. so loolu moo tax ma desoon pour xaar résident boobu noonu te alhamdulilah jot naa ko so maa ngi play ak team bi nii so I hope everything fine ma am something better than that alright balaa ñu ñëw si sa playing uh, team bi foofu si biir Germany mm. uh, dafa mel ni suñ bàyyee xel bu baax a baax si sa kaddu uh, dafa mel ni ñaakoon dat papers dat documents moo taxoon mun loon a ma dem si yeneen club su nga xam ne nii ngi woon foofu si biir di Europe because of xëy na soo génnee pour dellusiwaat daf daan nekk lu nga xam ne dina xaw a am some difficulty mm. dafa mel ni loolu dama ko ñëw bi yëpp papers moo taxoon ne mënu ñëw gis watamaan biir clubs waaye loolu loolu si bokkal comme ni ma la ko waxee soo ko seetloo fi man England laa nekkoon maa ngi woon England for three years te soo gisee si soo demee si papers yi ak lu tax saa nañ ba mënuma faa it was working permit visa loolu moom ma yóbbu bi ko dëkk bu nekk dafa am lu waayam nooy amee uh, working permit you know so England moom is one of the difficult place moo tax nga gis loo ñun Gambien si di fa play di nga gis Gambien Italie Germany waaye ñoom seen luwaa Gambia dañ war a nekk FIFA ranking so loolu soo amee European system commencé nañ Modou Boro ñoom Europe Swedish passport lañ amee soo mun nañoo play England or anywhere so ñun dafa different so xam naa ne Gambien yu bëri nañ gis Gambien si di play England ak yooyu waaye duñ understand waaw comme order waaye duñ understand lan mooy li waaye Italie dafa yomba pour nga am ko ak yeneen spécially soo nekkee under age comme nañ Moussa Baro nañ Lamin Koli ñoom yëpp soo leen under age lañ fa nekkee career demeewul noonu because bara may sign si team bi sa Hassel may woon uh, Czech Republic. you know so agent boobu sax am na Gambien bu mu fi yóbbu woon xam nga rek jërëñu wattu am ko after kooku tamit comme ma la koyee kooku sax dellusiwu dafa toog rek mu daw. you know te loolu daf day yàq contact tamit lu bëri so agent loolu la ma wax so loolu liggéey soom Gambien fii pour yóbbaale yeneen Gambien so man nit moo boole moom mu yóbbu ma Czech soo ma demee Czech man jaamaan si dafa am kayit bu ñu ma jox boo ne sa visa su soo ko xaar dafa am kayit so man bi waaye pour war a dem check war a ci suma kayit yi war a ci dafa jël long time man aar soo si la ñu waxee foofu ma delluwaat Germany pour la soo moo tax ba sign team bu ma play ma score goals loolu la waaye dem na ñëw na yëpp yëfi kayit ak yooyu noonu because seyu ma pour am kayit ak yooyu because ma sey pour am kayit rek because dama bëgg a play football football laa bëgg mu jox ma everything you know te man mënumaa nekk ko am ne dafa mun a dugal comme ay asylum man du ma yooyu noonu man football mooy am professionnel ba pare procédure pour mun a am kayit. right euh, léegi nag gis nañ loolu yëpp nekka lu nga xam ne c'est pass pass pass bi la otamaan euh, su opportunité bi ñëwee pour bigger clubs daal in Europe léegi euh, di nga mën a dem fu nekk pour sign fa lii di contrat congrats si loolu. Mm. ñu ñëw nag si sa club bi bu nga xam ne nag door nga foofu noonu a la life mel ak sa new club bu nga xam ne yaa ngi ko play recently in Germany. yeah comme football moom fu na gën a demee xa uh, in a higher dee gën a xaat mu ngi xaataman tuuti because of. Uh, you know subangoon lañ dee train ba pare sometimes tempo bi dafa ubaaxaay ba pare place yaa ngi bëri so always coach bi pour mu you know you have to be hundred percent always you know so you know but it's okay maa ngi try pour cope ak système bi ak you tamit coach bi tamit uh, Birsul ku baax la you know moom moom identify ak sporting uh, lii bi directeur ak you lu ko magi Leroy Sané sax foofu la mu nekka kooku mu ngi woon Celka so ñu am place boobu so it's not something easy you know but you know we are still uh, you know ñun dara warul ñu jaaxal si football waaye dara yomb na especially yéen a ngi deal with thirty players ak yeneen i different agents different kuñ gee déggoo so yo always rek yow chance boo am da nga ko waree di di jël you know di ko yeah Right. Uh, lañ séntu si ma um, Wataman ak that uh, right now in Germany la lañ séntu mooy sa goals right now Euh, pour gis rek ne euh, fii nga bugg a dem euh, si stage bi nga bugg dem si dëkk bi nga bugg a dem si ban part nga nekk di play pour gis ne you know hit nga lu nga xam ne moom nga soxla right now. waaw <clears throat> comme man waxtaan naa bi ko bar maa ñëw ni ñoom right now sax la ñu war a dee ñu bugg a denc for next season dañ dee bugg a waxtaan ak gaay ñoom waxtaan nañoo man ñu ne ma. you know dañ bëgg nga continuer ñun next season ma ko bar may say na ga bi xamoon na ne tiimi toog yooyu ñu ma moom sax wax ko mu ne ma xam nañ sa level ak sa dafa passé fii waaye football tamit da nga niit vitamin B. loolu ma ko vitamine moo nekk sometimes who you know and the right people. you know mu ne ma war ngaa mën a play si kaw waat ak yooyu noonu. but right now foog nga segare nga nga xa nga passé nga bàyyi lu lu passé because sometimes day gis ne dama dee off sometimes dama dee xalaat comme lu ma dal yooyu noonu. Mm. so because ñoom dañ xam nit. so mu la teew ma ne ko waa man na bëgg a xaar ba bi jeex ma seet lan mooy ñëw si table bi ma may xalaat pour des fii nii léegi suma ambition moo nekk ma dem. somewhere bigger or somewhere but men have feel more comfortable in a higher level moom tam respect na ko mu ne ma waaw ah we will see what will happen but dañ la woon dañ la bëgg a woon depuis léegi we want you to continue with us you know which is normal tamit teams yu bëri dañ ko dee def euh, recently euh, na nekk loolu am benn contacts euh, outside Germany pour voilà sign because xam nañ ne léegi dañuy January waaw loolu la loolu moo tax dafa difficult bu ko ma waxtaanee gars yi tamit na difficult dafa difficult pour ma dem January bi ko ñoom ko ma continuer gars yi bi ko team bi tamit ñu ngi si situation xam ne léegi niit a delluwaat back indi league ak yooyu noonu soo xam naa ne su ma wax dem sax naa ne right now faa ma ba sama a dem dafa difficult duñ ma bàyyi te soo sa team bi foog ñu war laa bindal loo xam ne ñoom ñoo la allow pour nga dem te ñoom bëgguñ laa jox free bëgguñ la ter xaalis sax bi ko dañ bëgg a des si ligue bi so dañ nit player like man ñoo xam ne daa expose am nañ expérience pour ñu seet naka la ñoo desee si ligue bi for next season so moo tax ma bëgg a concentré player gars tam ba season bi jeex ñu seet lan la yàlla di indi pare euh, loolu leer na si Society Club bi euh, ñu ñëw nag xool recently rek gis Gambia as ah, a nation as a footballing nation gis nañ recently qualifier nañ bi euh, gis nañ tamit rek bi dinañ dem play Egypt championship bi by next year foofu si loolu lii dem Egypt jamono bi naka mun a on raté Gambian football at this time of level bu xam ne boobu lañ nekk right now. waaw ñun ñun yooyu lañ gën a mun a happy sa pour because of sometimes man dama dee mën understand am dee ñu ngi dem si kaw sometimes ñu ngi dem si kaw sometimes am balance so man situation boobu man dama ko mun a xam dat mooy mais bi si development bi fii laa ngay mun a wax moom because man maa ngi remercié ñun suñ time we have so many young people they are exposed outside and stuff so quicker than now you know I mean but if am ah, brain of football tamit bëri na fi waaye sometimes dama dee la mooy problème bi you know wala la because ñoo xam football fii bëri na fii ñu play football bëri na fii nii you know what I mean ñuy liggéey si GFA bi xam nañ football so doo dee xam lan ngay mën a wax so I think ne ñoom tamit mun nañoo saani luñ mën a understand si football ak yooyu noonu. comme noo leen jàngee in Europe ni ñoo doxalee football ñoo doxalee seen club size yi euh, national team bi you know euh, loolu yëpp nekkal lu nga xam ne rek ne c'est important. Mm-hmm. tamit euh, ñu koy waxtaan parce mm-hmm. que yi on a catégorie national team bi. yeah man lu ma lu ma a understand somehow because Gambie lu ñu doon ñaan yàlla ñu ne dañoo pour ñu qualifier Cup of te qualifier nañ you mm-hmm. But after all, you get so many players you for playing coordination and they, they did they did good, very well. You know, and most of them so even they are not playing in bigger leagues. But I'm I'm not them right now, I'm team. They are struggling with which is very sad. So Lolo Alumuna understand Lolo can no sense bila you also want to play for your national team but you after nga talk I six months amulo team. So man sama wara ma day jaxal mun ma understand lolu no. bi. problème la amul lan la si management bi la wala si sama football la ak yooyu noonu parce que tamit amuñ contact tamit on a la waaye tamit dafa important koo ji si ak GFA bi nañ select place yu nit waaye benn benn GFA du dugg si biir fii mu ne ni nga war a def ni nga war a def so doo dee xam fan la nag na fii la na fii la because am na place am na mel ne leen caas waaye right now ñu ngi toog amuñ team amee mais lii ak lii ak lii so doo dee mën a understand man suma part a wax man loolu laa so ma problème bi fan la so many players ñu ngi am good tournament in the coordination mm-hmm. waaye dama feel ne tamit léegi modèle football bi léegi tubaab mm-hmm. they don't look for the national team ngay play if you don't have the quality and consistent in your team dafa hard pour ñu concept bi ko léegi ñu story yu in Africa ne am na players am na pour nga play seen dëkka sax dañ tubaab yaa ngi koo gis soo xam ñoo la Africa is very hard pour nga develop guy because think to how they want to do it because yang ko gis recently Cameroon ak Switzerland obvious oh, uh, Cameroonian la waaye yaa ngi gis yaayam génn si na bu mu su koy Cameroon yaa ngi si mooy leen ne mos ngeen ñu laajte xaalis pour mu ñëw play national team yaa ngi gis Mbappé loolu ah, Alaba tamit nekkoon Real Madrid nekkoon Bayern gis ngeen ñoom Nigerian lañ so yooyu mun nga ko compter lu bëri bëri so tubaab bi ñoom dañ dee rek nu mu fa demee dañ dee everybody can play national team in so so moo tax ma ne la sometimes doo dee xam fan mooy problème bi waaye dem na ñëw na yëpp man si place side bi la gën a wax as far as football nga mun nañ laa invite si national team bi but you have to be consistent da war a am qualité boo xam ne dafa la war a yóbbu si beneen level soo doon play nii rek da nga try war a strike ici leneen si football loolu mooy yaa ngi develop yaa ngi improve in much waaye sometimes du ma dee understand dama fii ne tam tam sama players tamit duñ dee am the right people mm. ñu loolu laa because ñun nekku ne ñun amoon nañ chance bu gaay am because man nekku moon Italie au Spain pour sign si team sooy noonu nekk si kaw understand so waaye ñun you know ba tey dañ dee déglu nit ñi seen wax yi nit ñi nag doo expect na luy wax négatif bi si yow is normal because comme nu ma la ko ñun prophète bi sax nekku ne ñëpp a doon wax lu baax si moom waaye tamit I don't understand some some of us things yi nu mu dee demee down so quickly ñu gis rek ne euh, amoon time bu nga xam ne rek euh, on social media bi ko xam nañu foofu la lépp léegi mën a nekkee parce ku nekk am na sa on ideas euh, am nga sa own thinking capacity boo war a mën a xalaatee sa bopp am na ñu àndoon ak yoone waroon nañ laa mën a oo si national team bi ko am na play ñoo ñëw oo si national team bi Euh, suñu xoolee seen status parce que status yëpp dafa mel ni ne yow yaa leen ëppoon status euh, mu am ñu xam ne ne woon nañ ne euh, Watamaan mag la léegi mun na tab place bi national team bi yow naka nga jaagat ni woon daal diffusion of ideas nga xam ne moom la leen ci amul social media bi. waaw comme ni ma la as far as fii soo amee tour ñëpp xam la moom yaakaar ne da ngaa yi gars yi egg bi comme mun nañoo xalaat bu nekk yu naa mel waaye soo ñëwee si Gambian football comme ni ma nii ñun léegi. kenn warutaat xalaat ñun lan lañ mun ak luñ munut on a sens amee mais dañoo ñu waxtaan ak yow because fii soo ko seetloo fii ba pare ñun Gambien si ñun dafa xaat pour nga wax dëgga dafa xaat pour nga waxal nit loolu mooy problème soo moo tax da nga gis ne man su ma filee ne su ma waxee lii daf maa mere du ma wax wala su ma defee li ak li ak lii ak lii ak soo daf dee xaat but soo ko seetloo tey Argentina soo ko googulee ñun yëpp football lañ ko amee mais da gis sa Gambien ba yow nga def sa liste nga oo yeneen place ñooy laxay jaamano ooyuñ ko te yow wax nga ne lu tax jaamano pilo ba tey ñu ngi laajte so nag nga ne nit ko naka lañ dee understand so yow moo tax yow loo war a war yow wakkoo moo gën waaye man du ma demoon understand man ok demoon naa down gars yi gisaat nañ ma ma play because GFA man koto yëpp maa am gars yi Alay Sarr maa am nombaam Ibou Faye xam naa ko waaye mosuma call kenn ma ne la on si national team because man du ma façon nit boobu la dama gëm lan ah, oo nañ ñun football la ñu wax e di mere amma ɓeɗa tama argentina bar gaali win coppa de la reɓe koju oyi ko te so rema si internet ɓe nala wolta oyi ko koɓe mune play hamne dañ over age dañ ɓori si team bi mere ko o dafata messi mere nga ne kadi wa te ñun dia professionnel tey moom messi ni lañ gën a def tey waaye soo gisee mu wàllu mu ne coach bi rimaat mu waxee ne kon over dafa bëri kon messi is over is past thirty that time waaye tey anamu de oyaat na di mere ya di mere tey moo win coupe bi final Moscow goal bi waaye ñun fii da wax dëgg sax nit mere la force bi mu ñëwa dafa iñaan kañ la iñaan saat saat spécial koy sooy dem di wax koo xam ne sax kooku tane na tuuti sax ñu daf ko iñaane <laughs> soo yaayee soo daf lay difficult pour nga waxtaan fii pour nit ñu understand understand wane so loolu mooy loolu mooy jafe comme soo ñëwee si national team bi ñoom tey bu ñu woo Ibu Adam si national team bi Ibu Adam mu in England division 7 te dañ ko oo si national bi te jaru ñu wax ne sa ñooñ moo tax ñu oo ko ñun Gambie fii la njëkk ko dee xam waaye te Ibu ko fii ko ñun dañ fi def Gambie lu nekk ba ñëpp xam ñu fii anasa ba tey kotoy tey soo gisee sax ñu gën a am respect ko lu ñu fi def di ñëwaat place suñu dëkka waaye ñun gis nañu ñu ñëwaat baax si level boo xam ne sax mais moo tane woon ñu ooyee sax ñu so ñun amuñ si problème loolu doos noon ne ñun fu ñoo des foofu la ñoo def waaye tey ñu ngi ni play si national team bi soo soo long waaye tey ñu ngi aaga foo xam ne ñun doon oo foofu lañ aaga so ñun amuñ problème kuñ oo kuñ oo comme ma la koy ne national team is just a private bu nekk time la tey am na ñu nekk si GFA playing national team texu ne Gambia dañ defal gars yi dara loo faa dégg rek playing na Gambia is just a pride so ñun ku nekk sa pride waaye ku nekk rek nañ ko jox aham pour affaire si mu dem man loolu laa fiil CFA national team ndax su fekkoon ne tey euh, euh, xam ne mooy national team bi o rek affaire moom national team moom you for everybody you know ki yaa war a xone sa bopp rek su nekkee mun nga ko comme ni ma la ni fii fii ñoom liñ mos a xam sa strength. because fii sa tour lañ dee toppa waaye nañ seet yow level boo nekk di play ak ñeneen level ba play ñu am strain bi <laughs> ak ñu amul strain bi da ngaa seet da nga ko dee xam di séem ana sàngal maa ni but ñun moom comme ni waaye yëpp yëfi strain loolu du suñ problème because ñun dañu si lu bëri sax because ñun tey dëkk bi dañu xam xam ne bëgguñ tey ñu ne ay saay defu fi dara ak yooyu because dal nañu suñ benn match fii nii maa ngi jógee Amérique maa ngi sona di wala ma jiyee fee jënd ticket ma ak si Gambia si te ëllëg la maaj bi waaye dama wax coach bi ne lépp si yàlla si Lamin Sarr mënuma play ko dama soona you waaye mu ne ma ok second half second half laa ñëw waaye maa ngi ubba na soona maaj boobu I was not performing ba fan si happy wuñ ñu doon saaga because dañu xam lan laa mun mm-hmm. waaye ñibbiwuma after because déwoo ñun dañu win fii Afrique Coast one not dama sacrifice ma ne sama team bi ne dama bugg a des fii ba return leg bi because ma waree dem ñëwaat dafaa jafe dama des fii ba yàlla def dañ dem biir Afrique nit expectoon ñu win gaa yi foofu noonu so afee si moom yëpp nit ki moom da ngaa xone sa bopp rek parce que football bi fen lu nekk time la tamit so I don't need to just bëgg a ñëw national team. lan la lan la si win. ok just play naa rek su ma ko muntee you know what I mm-hmm. <clears throat> so loolu mooy problème bi waaye it's all good. all right you know. ok um, all right uh, uh, uh, mu jël bi rek lan mooy sa message pour les young aspiring ndaw yi nga xam ne ñu ngi all for pour nekk professional players lan ngay advice gars yi ak su fekkee am nga any advice bu nga xam ne rek di nga ko tam di football authority ak stakeholder si lu nga xam ne yéen jaar ngeen ko outside you know ngeen si fii lan mooy message yooyu. waaw man si young style laa njëkk a door football am patience cause fii ndóoyi moom da nga day gis ne si koñ yi lañ dee dooree nga ne star nga rek nga star di feel big you fii mun loo fii play pour am fi xaalis so fii foog nga ab bi training nga dem trainer sa boo xam na néew soo munee dara ñëpp dañoo ne mun na dara soo mun dara am fi tur foog nga rayante di nga am so yoon moom foog ñu rayante foog ñu am pesen tamit noppale ko di seen cours si di am mm-hmm. paie seen am xam nga rek cours si tamit ak ñu amee team si tamit foog ñu am paie seen si ndóoy kon ndóoy tamit ñu ngeen mag ñu bëri seen famille tamit amuñu xaalis si ñoom lañ yaakaar soo dafa important la ñoo waxee ndóoy yi du ko fii soo yi ba dañu ngay placé foofu bi soo amee mais duñu am mm-hmm. neex lañ soxla ak nooy dimbalee gars yi dafa important fii ndóoy yi ba dañu ngi bàyyi football du ko soo waxee gars ñu ne ah dañ ma tontu lii wala dañ ma wax li nga téye sa boppa

Holland and Messi leg leg soccer win World Cup here, almost 36 years. And Luka Modric leg leg soccer win World Best Player 37 years. So you have patience la rek, you have patience la rek ak ak ak ak sa bopp rek, you know, so autorisé na football fii moom yomb comme ni ma la koy dooree mën a xam lan mooy problème bi. yéen a amee soo ñoom tamit am na ñoo xam ne tam foog ñu ñoom yëpp ñu toog di waxtaan bi parce que soo seetaan yeneen interview man seetaan naa ko ñaar si loolu loolu mooy wax nañ ba démboo ñu ne yàgg nañoo bëgg a toog ak photo yi joxuñ leen opportunité pour wax so andoona yee foog nga toog ak ko nañ ba dee boo ñu ngi si Europe bi almost ñaata yees di play mm-hmm. a ñu waxtaan ak ñu leen ah suñ nekkutee président sax si GFA bi mm-hmm. kon nekk loolu laa mun a understand nekk loolu pour nekk président GFA bi ko sax da war a nekk footballeur non as far as da développement rek it's okay war ngaa mun a couleur yi affaire si mm, mm. waaye it's important ñoom tamit comme koto yi soo dégloo si interview koto mm-hmm. yi ñu ne boole kon ñun tey tam dañoo ah ñu play football maa ñu tam nañu si boy si boole dara so ñu ngi koo jàng wala so moo tax nga léegi football ay bëri sax léegi Gambia léegi ñu bëri léegi ñu kaatu ñu ut carrière léegi ñu ngay uti xaalis bu ko defee fii ne solution bi mm-hmm. xaalis la pour ñu fii ñu respect la foog loolu ñu delloo ganaaw

daan xam nga rek borom dégg ñu ngi jàng dañ day dégg wax bu nekk mhm. si affaire si so which is also very sad ñu ignore koto yam ne te ñun soo gisee ñu ñu love football ñooñu la nga ñëw time nañ ñu man plus maa nañ Ous Jallow fii si ligue la ñun Tijaan Jete plus maa gars yi ñun buñu paree laa soog door ligue bi so ñooñu yëpp ñu ngi gis ne xam nga rek ñu yëpp nekk nañ tubaabu tubaabu ñu ngi Gambie fii ay ñaata yee sax doo dee xam seen biir kon ñu fi ne Gambie sax ñu ngi isolé ñun mi amoon na time mi ngi ëpp fii tur so ñun dinañ dem bés bu ñu bàyyee football dagaay nañu xoolaat so moo tax ma ne la ñun dañ dee wata moo tax ñu dee fii la nduy bëri xaalis lañ nekk di ut because soo bàyyi fool te amuloo xaalis boo am duñ la si boole duñ la jox respect bi te loolu is very sad ok alright euh, thank you very much Wataman euh, jërëjëf bu baax a baax si interview bi loolu nekkoon kàddu yi nga xam ne rek waxtaan nañ ko ak kii di ama Wataman euh, dégg ngeen si kàddu yi nga xam ne jaar na ko nag wax na si lu bëri si wàllum di football wax na lu bëri nga xam ne mooy exploits nga xam ne jamono bi dañ fiil ne dañ leen abandon si football ñoom it ndax suñ jeexalee duñ leen <laughs> abandon comme nuñ abandonné yeneen ama mag yi si bi football so moom moo ñaan rek mooy nañ ñëw toog waxtaan daayloo ak lii di exploits yi ñi nga xam ne ñu ngi abroad indi leen si table bi waxtaan ak ñoom xool xool yéen yan rôle la ñu war a mën a plier ndax ëllëg ñoom it su bés bu ñu xàngee seen bourse yi xam ne am nañ fu nga xam ne fan lañ si mën a wéeru waaye nag loolu su amul rek luy am mooy euh, uti xaalis euh, doo xam nag ban lig nga koo jëli waaye uti ko ñëw toog pour nga am respect bi waaye du loolu loo defal sa réew moo gën a important comme moom nu mu ko waxee euh, ak interview bi kon jërëjëf euh, thank you very much ñu ne kon euh, one on one exclusive moom am nañ ko ak kii di Watamaan mu nga xam ne jamono bi mu ngi vacation fii si ñaanal ko rek mu enjoy lii di si bi balaa moo dellu foofu si biir lii di amal jaman yi kon nag thank you very much for following Star TV Sport Bantaba with Watamaan um, I hope tamit you know nekk uh, put in the future yàlla yombale leen ko you know so you know, I'm very happy also to always contribute my point of view of when it comes to football and stuff I am very happy. jërëjëf thank you very much.